Assalamu alaikum, sunu mbok internet assalamu alaikum, chers abonné TIV Info comme ni mu daan démé saa TIV Info tay ñi deuxième euh, émission yaatal ñu euh, cher euh, responsable politique APR mom mu Matar Diouf donc mom lañ sét ci fi tay wara waxtane ak mom lépp carrière politique am lépp lu aussi ci élection présidentielle yi amoon na solo te mu joué ci rôle bu am solo donc ci loolu la ñu ñëw moom di ci dool dolli aussi ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci côté sport bi ba bokk ci ñi nga xamante ni dañu nekk foofu ci fédération sénégalaise de football di fa amal taxawaay bu am solo donc moom la ñu dalal fii ci Tiv Info euh, Matar euh, nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa Tiv Info. donc euh, di leen remercier aussi ci invitation bi ngeen def tey ak setsi bi ngeen ma setsi di leen wax dal leen ak jàmm di profité ci occasion bi aussi di nuyu sunu kilifa diine yëpp euh, surtout sunu xalif général Serigne Babacar Sy Mansour diñ ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko sunu kanam euh, di ñaanal sunu waajuru teddoo Serigne Abdoul Aziz Al Amin yàlla na ko yàlla yokk leeram moom aussi ak sunu ay waajur yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam kanam di profiter aussi ci occasion bi tamit di delo njukkal son excellence eh, monsieur le président Macky Sall ci ndam li mu am ni yalla nek nekk te sedd guyu di nuyu ñep di nuyu tamit sama naataanga yi nga xamanteni que langue politique bi fi ci tiawon amna solo matar <laughs> dafa melni sax <laughs> da nga yàkkamti djublu ci sen victoire bo am solo bo nga xamanteni récemment mom la eh, président Macky Sall am comme ni ko bien que am na yu sew yu yu yu laxatu ci biir comme ni ko opposition aussi waxee mais balaa ñuy ñëw rek dañuy euh, ñëwaat ci par rapport ak Matar Diouf taxawaayam ak parcours am jaar-jaaram ba egsi fii. waaw Matar day benn ndaw ndongo daara la rek boo xamante ni que ndaw la bu dëkk Tivaouane juddoo fi màggee fii ay waajuram dëkk fi aussi donc euh, doon œuvre aussi ci ci social mën naa wax bon c'était naturel ah. mën nañu wax ni li indi tur bi nag en général bon mi ngi démarré ci ci ci nawetaan parce que ay xale la ñu woon nekkoon supporter donc doon supporter di supporter sax ba léegi équipe bi nga xam ne yàlla dogal na moo turam xëy na ci Tivaouane moo fi tur bi fi gën a mag muy ASC Kouly donc ñu nekkoon fa en tant di ay ndaw ba yàlla suturaal ñu ñu dem ba doon fa njiit jiite ko pendant des années xëy na sunu tur aussi am na foo xamante ni que àgg na ci loolu donc bu ñu jógee ci loolu ñu ngi doon œuvre ci social def naa immigration aussi parce que bi may sama waajur bi ma yóbbu may tukki j'avais 17 ans moins de moins de 18 ans ma dem Italie donc bi ma demee Italie liggéey fa pendant des années ñëw fii li ñu ama ko si ñu koy bokk ak doomu dëkk bi investir ñu investir fi fii aussi au Sénégal donc bi ñu ko fi investir ci wàllu peinture oto ak sumay ay rak yi topp ci man ñu ànd di liggéey ak sumay jarbaat donc ma leen di remercier aussi di leen nuyu de passage kenn ki yàlla dogal na génn na àdduna yàlla na ko yàlla xare aljana muy Baye Cheikh Diouf moom aussi duñ ko fàtte vraiment mu joué lu rôle bu am solo ci suñu carrière nag ci suñu carrière professionnelle donc wàllu liggéey je parle bi ñu demee waawoon ñu ni sollicité parce que dëkk la boo xamante ne que dëkku dëkku taalibe la du ñu yaakaare ne mën nga jàppale doomu aadama ak lu mun néew rek duñ la ko yaakaare dañ lay seet ci loolu lañu demee nit ñi di ñu seet si ñuy jàppale te yàlla tax les jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk ci école yi aussi di ñu seet si euh, di ñu tuddee ay di ñu na ay foyer di ñu tuddee ay ay ay seeni seeni programme yu bëri bëri yàlla defal ñu sutura lu ñu yëgal rek ñu dem ci bon c'était naturel aussi séntuwuñ ci woon politique yàlla xam ne loolu donc ñuy œuvre ci loolu ba ba un moment donné day suñu benn paax bu ñuy wax Modou Gueye di sët ci Cheikh Ba Gueye dëkk fii à côté moom tamit ñu ngi koy nuyu de passage moom moo ñëw benn jour woo ma ne ma daal li ngay def dafa ànd ak politique ñu ko am ma ne ko ah man de mosuma politique mu ne ma noonu il faut nga politique mu ne ma parce que social bi ngay dox faaw nga politique parce que moo lay moo lay gën a dooleel parce que gis nañ li nga nek ak doomu adama yi do nga dom nga mais gis nañ li ngay sonn ci nit ñi wax ma wax boobu mané ah je vais essayer donc ma commencé suma carrière politique euh, 80 suma jumu 80 89 wala wala 2009 je pense yagul 2009 local 2009 lañ démarré donc ñu amone ben mouvement de ko acte man ma ci nekkone ñoma euh, Abdou ministre Abdou Ndane Sall Matar djum bi nek legui consulat bu Espagne ay ñom Yalamin gumbalo ak amna ay ñeneen responsable Tivaouane yu fi nekkon ay ñom Pape Momar Gueye ñeneen ak ñeneen ñun ñoko ko formé won donc biñ ko formé defal suñu liste fi au niveau local dañu démé yalla dogal ah, am ñu ndam donc fofu nak la mo politique virus politique commencé duggu bima commencé duggu ñu dawal tuti donc lepp gëw won ko ah. ñu dawal tuuti dawal ba présidentielle ñëw ñu dugg nag ci làng gi biñ ci duggee nag yàlla dogal euh, ba entre les deux tours vraiment biñ ciy dugg ñu ngi woon ak euh, Cheikh Tidiane Gadio parce que dañu gisante woon vraiment ñu waxtaan mu wax ma ay ñu ànd ak moom ci liggéey bi biñ ci liggéey ba yàlla dogal fekk moom aussi mi ngi liggéey ak le président Macky Sall bi ñuy liggéey ba président Macky Sall jàll deuxième tour ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar boobu. biñ ci bokkee ya, gaay def ñu def face président lay wadé man nak fofu donc ma am taxaway bu ma taxaw nak parce que man président Abdoulaye wad la doon jappalé entre les deux tours donc am lu eh, lolu lolu mata rek ku am te koy def de parce que contexte bi ni mu non nga taxaw ni da ngay jàppale Abdoulaye du lu dul yomb nekulon lu yomb bon nekulon lu yomb gëmon ni aussi duñ ci am ndam mais il fallait ko ñu def ko parce que contexte bi mo taxone man nag xam mom man yalla dafa def ñep xam amna fi mais mais non nan ngay songé loo xam na li te gëm na nga yow do ci am dam tour nga ci bëggoon wala non du question de tour la ci bëggoon parce que tour mom yalla dogal na amon nako déjà lolu mom yalla def nako ci man foro ma den wax mataara ngi nee dem lolu yalla def nako du du luñu ñu mais xeyna do mu tuyaawoon lan et puis nit ñi ñoo baxé non dal mais contexte bi du lepp lañ mën wax mais man il fallait qu'on ma son excellence euh, maître Abdoulaye Wade mais bi nous parler ci lolu vraiment ñu xamné que légui lolu passé na après nag ñu démarrer bi ñu dawee comme ñun kuli lañ dëkk amna suma ay euh, ndijaay non seulement ay politiciens lañ aussi suñu koñ aussi xawon am toute division bimu ko amé man ma nekkoon président équipe bi donc ñu xool ne koñ bi mi ngi bëgg a ni pourquoi pas duñu xol ñun ñi œuvrer ci politique yëpp ñu jëma a doon benn bon comme man rek maa ci nekkoon ñi ci des benn camp lañ bokkoon man maa faroon ci beneen camp koñ bi xaw a yàqu man ci sama OFT personnellement ma woo Ablaye Mboub donc ñu ngi koy nuyu moom aussi xamal ko ni ko comme moom mi ngi jàppale honorable député Cheikh Tidiane Diouf nañu nañu jéem a xool koñ bi duñ doone benn ñu waxtaan ba benn jour moom mu ñëw sama salle ablay Cheikh ñoom ñëpp ñu ñëw ñoom Cheikh Diouf ak ñëpp ñu ñëw toog sama banquier mi ngi fi woon aussi jour boobu sax ak sunu papa Doudou Tew Ngom ma ngi koy nuyu moom aussi bi ñu ñëwee toog ñun ñëpp ñu ne pourquoi pas mën mënuñu ànd ñun ñëpp ñu def benn blog ñu ànd ñu liggéey ma xam ni loolu comme mooy yombalal mbir mi te mooy tax koñ bi neex koñ bi doon benn vraiment j'ai accepté mais boobu accepté ci ban ci ban bannière nga dem dugg boobu mooy sa dugg si APR wala ci ci ci ci ban entité ngeen dugg noonu. non boobu Cheikh Diouf boobu nekkul sax moom APR boobu moom mi ngi réew mi boobu mi ngi réew mi ñëwagul APR mais comme boobu moom mi ngi bëgg a nekk maire man aussi dama ñëw pour euh, jàppale ko ànd ak moom pour mu doon maire. ok boobu contexte local la woon ko contexte local la woon effectivement woon te man boobu bëggoon naa moom aussi mu doon maire donc euh, ma ñëw jàppale ko ci listam vraiment dugg ci liste bi bay ci sama waar nag. am ci taxaway bu am solo ba Senegal gep xamni amna am ci taxaway bo lolou nak sax pratiquement moy fës bi ma gëna a nak ci politique parce que dama ci engagé won xam man suñu dama engagé duma engagé damay engagé lolou la ñëk a nak nag ma ci duggé nak mom euh, ci la saaraan tartari nak mënatuma freiné <laughs> daal dadi dadi di atterrir ci bir APR. avant bon avant may atterrir ci APR ma ngi won aussi bon bi Cheikh bi yalla dogalé and bi jeex Eh, ma ma and nak ak honorable député job si waaw mom aussi mo nek jambar liggéey ci Tivaouane œuvre ci Tivaouane nek nit ko xamanteni nga def lu ri ci Tivaouane donc ñu ni pourquoi pas duñu and ak mom ñu ngi and ci pertu gamu Tivaouane fekk do nañu gisante ci bourdou yi negu Serigne Abdou vraiment njabot gi bëggoon nañu and bon ñu bokku vraiment kilifa Serigne Abdou ñepp yakamte won nañ ñu ànd donc kérok bi ni bi mi ñew di ma woolu si ñu may jël ci elage mbeng diop mi ngi ma fekk ma tëdd sama nek sama biir chambre akusi la ñew ni ma tay kenn do la fi di nga ñew wuy si force waaw vraiment elage mbeng ñew ma juk jour boobu sangu ma sax biñ démé kër diop ci ñu tok waxtaan ñu waxtaan waxtaan bu am solo momit muy ku bax di suñu papa ju bax wax de yalla diop ci donc biñu andé ñu andal liggéey ñu andal liggéey andal liggéey liggéey bu am solo ah japp moom day euh, jaar na yoon ci sama côté man nag xaw ma nu ma àndee woon ak moom mais man jàpp naa ne moom jaar nañu sama côté ñu ànd ba yàlla dogal ñu ñëw ci législative yi passé mu def ma dama tukki woon sax fekkuma Sénégal maa ngi woon Paris donc euh, ñu def ma tête de liste fekk lu jiitu loolu président recevoir nañu li ñu recevoir demandé ñu ni d' accord naa ngeen def fépp liste ba mu des Tivaouane même Fatick ba ngeen dëkk sax ba ma dëkk def leen fa liste mais pas suma sa sañoon Tivaouane doon fa am liste da ngeen may jàppale foofu bon wuñ ci ay kàddu ñu defar liste bi ma defee tëdd liste bi ma ñëwee man aussi ma ma songu campagne avant campagne bi di ubbi commencé woon naa def tournée. mais mais boobu Diop si eh, président Diop si moom la président Macky Sall wax bul defar liste Tivaouane wala. parce que ci ni ma déggee dafa mel ni boobu yaa Diop si yéen a continuer di ànd. oui effectivement ñoo continuer di ànd mais ñun ñëpp la ko waxoon mais Diop si comme moo nekk mooy président parti bi mom la ko demander personnellement mais on était 10 personnes fofu ci audience bi man ma ngi tok dina ko président di wax waaw bir palais bir recevoir ni bureau ni duma sañon do len leen def doo leen defar liste Tivaouane wax ñu waxante donc on était d'accord ça duñ duñu defar liste mais par la suite am contexte yi changer ñu ni dañuy defar liste finalement biñ defare liste ah ñu liggéey nak liste bi liggéey vraiment ñu liggéey bir tiawan liggéey dans le département mais xam nga président mom il est plus renseigné que tout le monde dañu démé ba xamné que liste Diop ci bi ni war na mëna a tiawal ah, président jaar ko nak ci sama frère Ablaye Ndiaye Ngalgu mom aussi moy nit ku bax vraiment mu woma téléphone fekk ñu def fii caravane bu mat bi ñu caravane le lendemain xawma ma ci gi Ndiaye ma ah Matar nga baal ma de vraiment wax wax bu teggin daal di nit ku bax wax bo xamné kuy nit duñ la ko waxé di nga xalat ma duma sañon nga wuyu président ci wote bi mu lay wo man ma dem wuy ji te fekk bobu dèjà yaa ci liste bu la wa bu la job ci interview 15 jours des élections bobu man ma dama tëdd liste donc c'était pas facile parce que dem na ba sama njabot suñu génnee dañ leen xoole bëtu workat dem na ba man c'était gêné aussi mais nak tiwawon ak lu meuna xew rek euh tiwawon mom ci kilifteef rek lañuy teunkou waaw te waruñu ko xañ ak président Macky Sall ak lu mëna a xew ci aduna man ma jël risque bobu bima ma risque bi nak dem ah arrêté liste bi dem jappalé ci président Macky Sall dégg naa ci lu né mais tey l'histoire m'a donné raison waaw tay histoire jox na ma raison quand même parce que président Demba Diop si retourné na ñeu di jappalé président Macky Sall ak ñi nekkoon ci liste bi yépp tay yalla dogal na ñepp and nañ fi mu di jàppale président Macky Sall kon man suma bañoon ah man ma tay des wala président dina ma xolé bët bo xam té te amuma woon raison bana bañ parce que non seulement kilifa yi nekk ci dëkk bi lolu lañ bëggoon. kilifa yi euh, yan kilifa c'est-à-dire kilifa ci côté diiné wala. voilà kilifa ci côté diiné parce que ku ne xam tu Tivaouane xam ni que vraiment kilifa yi fi nekk Macky Sall lañuy jappalé donc lolu lolu mom ku ne xam parce que mo leen ko ji aussi en plus. Euh, man personnellement au sein de la paire c'est des amis yoo xamante ni que rafetul sax ñu may dégg ci opposition. mais mais une fois faut ñu ñëwaat aussi c'est-à-dire le fait que euh, nga nekk ci benn liste parce que loolu bon xawoon na def benn benn buzz sax ni ñu koy tuddee parce que nga nekk ci benn liste ñu nekk en pleine campagne ñu jékki-jékki gis la nga génn ci liste bi dem fekki APR. bon loolu tamit euh, nekk na lu doy waar mën nañu sax loolu moom yaa ko njëkk a def quoi. <laughs> non pourtant njëkkee ma ko fi ah. loolu am na fi Moustapha Cissé Lo cité na ko en leen débat cité na ko ni euh, lu mel noonu am na ñu ko fi def ñoo xamante ni que euh, bari na tur na ay tur yu ko fi def. wax na mais sa bés rek moo siiw quand même. waaw xam nga sama bos dafa tasante ak euh, kii sa mbos dafa tombé ak ak réseaux sociaux yu bari télé yi xam nga ak télé privé yeeg rajo yi mais njëkkee ma ko fi parce que Moustapha Lo bon dama dama dama dama maîtriser wul mais Moustapha Cissé Lo wax na ko.

xaw na kii mais par rapport aussi ak président Diop si mi nga xam déjà moom moo jëloon euh, sañ-sañam daal lay def ci listam moom aussi euh, nan la gisee choix boobu nga def après. waaw doo ko xam naa ne nag doo ko neex mais xam nga Diop si nit la koo xamante ni que kenn du ko dégg ci wax moom genre boobu la xam nga man yàgguma ak moom moom trop mais nag mën naa bind ci moom livre mën naa wax ni que nit ku baax nit ku gore. yaa ma dégg keroog dama ko seetaan émission ngoonal mu def émission bi ba mu jeex yàlla xam na ni du fekkoon ni mënoon nañu ubbi ligne jour boobu man damay woote wax parce que dama xam ban genre nit la Diop Sy Diop Sy nekk na koo xamante ni que loolu moom même du ko méttee du génn ci mbedd di ko wax du génn ci télé di ko wax du génn ci rajo di ko wax am na ñoo xamante ne que ñu ngi ànd ak Diop Sy depuis loolu duñ ma nuyu ndax loolu mais garaawul parce que garaawul quoi japp nañ ni que ñom xam nañ politique peut-être ñom ni ñu ko gisse lañ ko gisse ñom xeyna dañu am seen intérêt ci Diop Sy ba tax ñom ñu defé nonu xeyna man amona suma intérêt ci président Macky Sall man sulu dara en tant que le hors de Matar du politicien parce que politique du métier man je suis opérateur économique ya nga dégg je entrepreneur bo xamanteni ni que man tay dama am ay marché ak état ba bima doon def lolu man état ma devait de l'argent yalla xamna lolu bobu comment nga te tey état xadi ci man ku dul man sa état xajul ci moom man tey du ma contranté ak état du ma bras de fer ak état aussi. nguur ku ne xam na euh, intelligence ngay ngay ngay joué ak moom parce que tey loo koy jaay ci ci ci mën na ko jënd. mais mais aussi su su ñëpp bañee bras de fer euh, ñëpp aussi demee intelligence ak état ça veut dire kon opposition dootul am. non opposition mën na am mais ñuy def opposition ak ak ak ak ak ak nguur bokkuñu ak man statut quoi qu'on dise man tollooguma foofu tay ñi nga xamanteni ko man ak ñom tollu nañ fi ci Tivaouane yaa ndeg di sama ay natango politique man na def ak ñom bras de fer fu mu yam neex mais ku lu mel ni nguur man guma fofu ta benen bi ci dess man na la cité tay di ku ci melni ay Khalifa Sall tay doon na def bras de fer ak nguur tay fan la mujjé lepp lu mu doonoon dañ ko dindi muy maire de Dakar di député yooyu yëpp dañ ko dindi ci mom ba tay ji mi ngi ci kasso bi nekul question de ñun suñu bañalon lolu dañ ñu yobu ci kasso bi wala dara mënuñu yóbbu ci kaso bi mais nag sunu nawle yi nga xam ne dafa nu riir jox ñu liggéey ñooñu ëllëg liggéey boobu ñoom nan la ñu koy joxe joxewaat parce que tey am na ñoo xam ne dañuy wax ni que suñu joxee Matar Diouf liggéey day day financé opposition bi à Tivaouane dëpp ko ci mel ni le ministre des sports Matar Ba c'est un ami intime di suma xaritu benn bakkan ñu yàgg yaa ngi dégg presque mu jiite fi ONCAV ñun ñu nekk ay produits nawetaan tey ñu seq loo xamante ni que loolu c'est privé entre man ak moom mu may jàppale ci suma wàllu liggéey ak yeneen ak yeneen tey est dina ko neex mu nekk ci ministère ba mu nekk wala mu nekk Fatick dégg ñu naan noo Matar Diouf ma ngay xeex APR Tivaouane te moom tey teraanga gi mu am ginnaaw yàlla APR moo ko jox loolu dawuloon rafet aussi voilà xam nga am yoo xam ne yu bëri la en plus du loolu lépp weesoo sama ay waajur yi nga xamante si tayji may dem di di di di di di kenen ñom ñu ki sama papa wax na ma lolu man sama bay bi ma jur mom taxaw na ni ma ben yon la musa a ablay wad sama carte yow ya tax ci entre les deux tours yoy donc lolu nak yoy yep il faut yo xamanteni ko dang koy ki dang koy éviter. kon donc Matar ñi ngi lay euh, donc gis nañ réponse par rapport ak ce euh, joggé ci job euh, si bi nga nekkon dem ci président Macky Sall bon li nga ci aussi leeral na te manees na koo nangu comme que ci cadre kilifteef nga ko def muy kilifteefu eh, diine muy sëriñ ji fi nekk ak kilifteefu aussi ay wayjur donc léegi dugg si na ci biir APR cest à ban taxawaay léegi nga am léegi sa dugg si boobu ci biir APR ak ci Tivaouane nga xamante dañ fi waaw bi ma ci am mooy taxawaay bi ci ñëpp am parce que ku ne xam le président Macky Sall li mu li def Tivaouane non seulement def ko Tivaouane mais def ko ci këru diine yëpp man dama koy wax ne Macky Sall dafa dafa dafa dafa dafa teral këru diine bien vrai que këru diine nag yàlla moo leen teral parce que nguur président day jeex mais këru diine yi seen nguur ba ilaa yow mi diin du jeex waaw tey yàlla na yeex xalifa bu fi jógee rek keneen day ñëw toog ndax seeni maam moo fi liggéeyan loolu ndono la ci Seydi Hadji Malick ca ca Seydina Muhammad sallallahu alayhi mais su ñëwee nag moom yokku ci def ci këru diine yi loo xamante ni Ah, amul ben président bu ko fi musa def kon koko yon la tamit ñun ñep ñu jappalé ko ñu contribuer ci man so gisé ma gëna a sawar ci tay ji dugg bir APR ak contribuer ci bir APR moy ko président Macky Sall dafa daf ñu jappalé ñun waa Tivaouane rôle bima ci jouer nak euh dafa am solo parce que ku ne xam que nañ que ñun par patch la bien vrai que Tivaouane ñep yalla defal na sutura amé nañ fa ay xamé am nañ fa ay nit mais nak tiwaawoon fi ci parti bi ci gëna sensible gën fi xamanteni ko tay ji mo moo ëpp xeex ci tiwaawoon moy man quartier bi ma dëkk muy quartier Kuli di centre de vote école 4 di centre Aline Mbaye Pala donc euh, presque y a plus de 5000 et quelques électeurs am 10 bureaux de vote di centre bi gëna mag dans le département donc mu wóor na la que tey doo ko gañee da ngay outil lenen rek mais sa victoire tiwaawoon man na yombu donc ma dëkk ci quartier bi ah liggéey aussi ci quartier bi donc parce que onze quartiers ñoo ko seq école 4 yàlla dogal na 11 quartiers yooyu am presque euh, ASC jàppoo ci la bokk ASC Kuli ci la bokk ASC Aynu Madi ci la bokk Nim bi ci la bokk Arafat di avenir ci la bokk donc je pense Arafat donc muy cinq ASC te yàlla dogal na 5 ASC yooyu yëpp man Matar seq na ak ñoom jàmm. am na foo xamante ni man ak ñoom aussi euh, jaar nañ fa ci ci ci teraanga ci lu baax donc ba vraiment ba bi nu bi nu demee ci ñooñu seeti leen ñoom ñëpp nangoo jox ñu loxo ànd ak ñun pour liggéey ak ñun ci école 4